alors ñu egsi ci jàngat bi ak euh, docteur Abou Sy nekk psychiatre euh, docteur ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm. maa ngi leen di fay di nuyu mbokku plateau bi di nuyu mboolem ñi ñuy déglu ak ñi seetaan. Hmm. merci beaucoup euh, alors docteur tey jile hmm. dañoo bëgg a taxaw ci benn ponk muy li xew ci réew mi fan yii yëpp muy fitna fitna boo xam ne. Euh, de plus en plus dañ koy nemmeeku yi tamit euh, ci euh, xale yi moo xam ay tuut tànk lañ wala sax ay ndaw laaj bu njëkk bi xañ na mooy lan moo mën a pousser benn xale wala jeune ndaw muy am ay comportement yu mm-hmm. ko wax fii mm-hmm. fii violence dafa bokk ci nit donc ni tax nit di màgg mais violence dañ koy maîtriser li koy maîtriser nag moom mooy dafay am li nga xam ne nit ki dafa intégré loolu ko intégré moom moo koy tënk ba nga xam ne bu naree def dara lu violent day am lu ko téye loolu nag bu ko téyetul violence bi day daal di exprimer wu donc aujourd'hui on est dans cette situation où peut-être que Euh, lii nga xam ne moom moo war a tënk nit ki li nga xam ne moo war a tënk xale bi. Hmm. pour mu war a violent loolu peut-être amatul ci dans société. Hmm. lan moo ko war a tënk ci société bi. waaw xam nga boo xoolee ci ci euh, concept freudien dañ naan le ça le moi et le sûrement loolu def naa ne élève terminal jàng nañ ko. waaw voilà donc xam nga le saa moom dafa nekk pulsion mooy li ko neex rek na am li mu bëgg léegi léegi mais loolu dafa am duñ ñu koy opposé mooy le surmoi. le surmoi surmoi boobu dafa may ay instance mhm. première instance bi moom mooy pappa ci biir kër gi mhm. donc dans la relation euh, duel entre la mère et l'enfant le tiers va euh, bi dafay intervenir mooy pappa ji moom mooy doon première instance su régulation deuxième bu génnee ci euh, ci biti deuxième instance régulation bi daal di doon la société société nag dafa am ay mécanisme yoo xam ne moom moo koy tënk pour que toujours saa boobu mooy pulsion boobu mën a bañ a wu te pulsion boobu violence la pulsion moom violence donc la donc bu ñëwee ci société bi dootul nekk papa mais dafay nekk les institutions yoo xam ne ñun ñooy garantie euh, l'équité et la liberté donc institutions yi bu ñu demee ba nga xam ne nag euh, fi ñu war a taxaw taxawuñ taxawuñ ko wala papa bi ci biir famille fu mu war a taxaw taxawu ko donc su boobaa nag ma intégration sur bi moom mooy tout ce qui l'ensemble des lois et des règlements qui la le fonctionnement amatul rek saa bi dafay saa bi dafay dem te saa bu ñëwee rek moom pulsion la euh, agressivité lay doon donc moom violence lay doon. donc bokk na ci waay dañu génn ci mardi gras démb. ñu gis ni suñu xale yi euh, ñu ci bari dañ leen di jox fowukaay bu nga xam ni mm. dafay mel ni jumtuwaayu xeex la. Mm. moo xam fital jaas yi ak euh, déguisement wu guerrier yooyu. Mm. yu mel noonu la ñuy gën di xiirtal xale yi. loolu aussi est-ce que du cultiver maanaam euh, pulsion boobu nga xam ne mooy le ça maanaam violence ci gone gi nga xam ne dañ koy xiirtal ci arme lu ne mel. waaw loolu dama ciy profitoo sax wax mbégte bi ma am ci euh, Mardi Gras ba ma demee ci école euh, sama xale sama doom yi. Mm-hmm. ma gis te am ne xale yu jigéen ak xale yu góor ñu bëri ñoo xam dañu sol solu traditionnel. cosaan cosaan loolu ñu koy rafet rafetlu parce que loolu dafay dafay mm-hmm. ancré. Mm-hmm. suñu xale yi ci suñu société mm-hmm. donc euh, le fait aussi que ñuy gis xale yi ñuy sol ay tenue policier wala di sol tenue euh, militaire wala tenue sapeur loolu tamit daf ko dañ koy rafetlu mu nekk loo xam ne nii dafay wan nekkoon am na benn valeur boo xam ne institution dañ koy représenté et que xale yi intégré nañ ko comme des institutions yoo xam ne dafay euh, dafay dafay dafay dafay sécurité dafay indi sécurité mm-hmm. mais léegi dafa am beneen affaire bu xew mooy mbirum foowee comme ni nga ko waxee foo pistolet yi ak ak jaas yeeg affaire yooyu mu nekk dans un contexte boo xam ne nii mm. euh, mooy comme ni ma ko waxee bu nekkee amul contexte bi contrecarré di di mën a assurer sécurité loolu buñ ko indee promulgué ko daal di koy daal di koy fexe ba mu ba mu bëri. Mm-hmm. loolu mun na indi leneen lu muy indi ci xale yi parce que boo xoolee fu mu nekk nii euh, dañu dañ daam yoo xam ne nii suñu société suñu valeur dañ ko dafa commencé dem. Mm-hmm. parce que boo xoolee léegi da ngay toog presque chaque jour ñu ne rend nañ nit. rey nañ nit te loolu boo mosaan dégg dans des am na yoo xam ne nii. boo ko daan dégg daf lay choqué maintenant léegi dañ koy dégg mel ni comme. banal banalité waaw donc loolu bu ñu banaliser loolu ba pare de l'autre côté ñu woon xale bi am nga yenn moyen yoo xam ne mën nga ko utiliser pour def loolu mën naa indi lu muy gaañ donc man par rapport ak loolu. Mm. dama naan am na ñaari affaire benn affaire bi mooy bu nekkee xale bi am na assez de valeur pour intégrer les les positifs. Mm. de de de colwaay yooyu mooy nga xam ne sol loo xam dafay représenter suñu culture. xool sol loo xam dafay représenter suñu institution de défense et de sécurité mm. yooyu dafay nekk loo xam ne dañ koy rafetlu. mais bu nekkee nag dañ ko bëgg indi mu nekk loo xam ne ni ay arme la yoo xam ne ni dañ koy inculquer xale bi donc violence boobu ñuy inculquer xale bi mën na doon loo xam ne ni da koy bokk na si sax lu tax ñu invité la mooy image bi di jàll ni on s'excuse quand même pour la diffusion de cette euh, image. image bi danga nga gis euh, xale bi euh, fulute nañ seen kanam yi sax mais dangay gis muy télé pistolet maanaam daal di koy teg ci tàmp beneen moroomu xale ma mu mel ni nag ñi ko seetaan sax. ba photo bi mën a jàll. Mhm. pour man ñooñu ñooy responsable est-ce que quelque part également commencé wul ci parents yi ñu jël les devants pour que euh, les pistolets les ñu bannir ko par rapport à l'utilisation avec. Euh, man je vais même euh, aller au-delà parce que maa ngi koy doo gis. Mhm. mais boo xoolee lii lu muy lu mu ci jàngat ma ci am. mooy institution c'est-à-dire tey ji dañuy foowee lenn mooy le drapeau du Sénégal. mu nekk institution boo xam ne dañ ko war a respecter mais tey ji bu ñu jëlee ay ay xale solo leen mbubu si drapeau Sénégal équipe nationale. Mm-hmm. Ah, donc muy am institution les représenter jël ay ay armée donc tey ji ñoo xale ñoo ngi leen di indi ci benn conflit ñoo ngi jël ñoo ngi dugal ci subconscient wu nit ñi benn conflit boo xam ne dafa am diggante les institutions qui représente la nation et loolu dafa grave parce que loolu dafa indi benn dootu amati benn cohésion nationale parce que tey jii lii pour man c'est c'est c'est une image qui choquante mmh. waaw lii c'est-à-dire amuñu lu ko mën a expliquer quelle que soit la situation quel que soit le message quel que soit le le le le niveau de de de de de de de de désaccord mmh. que bu ñu war a am war nañ mën a conserver une cohésion sociale Hmm. donc ça, responsabilité et des parents et des hmm. éducateurs dafa engagé wu parce que même bu leen ko parents yi sololee bu ñu demee ca jàngukaay ba hmm. war nañ ko positiver au lieu que ñu koy euh, wone nii effectivement c'est-à-dire que buñ mooy li ma sànq bu ñu gisee xale bu sol euh, tenue militaire waaw dañ ko xamal lan mooy loolu dañ ko war a xamal lan mooy tenue militaire xam nga yenn saa yi da nga gis tax nit mu nekk ci mbedd bi ñun bi ñu nekk xale maa ngi koy fàttali Pikine laa juddoo Pikine laa màggee wetu Camp Thiaroye mhm. donc boo mosaan sol tubay tërëy mhm. boo boo rombee militaire da koy nangu mhm. parce que daa lu muy symboliser daa am lu muy symboliser tey jii boo rombee policier ci kaw tëli bi mu taxaw di régler circulation ne la prip taxawal dangay taxaw c'est parce que tenue bi la maanaam c'est c'est symbolique boobu lañu ñu war a dool la ñu war a euh, euh, inculquer xale yi tey jii bu nit ñëwee ce que ce qui est extraordinaire avec le foot avec le football. mooy bu ñu demee ba jël euh, drapeau Sénégal tey di ko di ko weer di ko di ko di lal fu nekk mu nekk benn affaire boo xam ne ni dafa am lu muy inculquer ci xale bi en en terme de patriotisme. parce que loolu tamit il faut ñu commencer ko inculquer xale depuis ñu nekk xale mooy lu ñu wax sànq. Hmm. développement boobu xale bu ko màggaalee. daf koy intégré bu ko hmm. intégré day xam ne lii sama réew la lii sama hmm. institution la. Euh, c'est une représentation d'une scène boo xamante ni ça s'est passé ci manifestation yi ñu génn peut dire que ki ko def euh, dafa am lu mu ci jublu mais le problème mooy est-ce que suñuy combat war nañ ko transposer ci suñuy doom <laughs> foofu la euh, problème inculque leen ko ñoom ñu dem commencer di ko di ko dund à cet âge et quel legs on donne à nos par rapport ñun à nos est-ce que c'est le legs bi ñuy attendre ci ñun mooy ñun ñu jeexal suñuy guerre et puis bàyyi ko xale yi est-ce que c'est ça xam nga sànq bi ñu commencé ci développement pulsionnel ñu ne ci kër lay commencé relation diggante yaay ak doom jékki-jékki papa ñëw dugg ci donc mu représenté benn stabilité triangulation boobu amul xale bi du stable nit ki mënt stable loolu mooy fondement wu nit ki. donc muy commencé ci biir kër. donc mun na ay tension parce que li tax papa ji di ñëw ci dugg ci diggante relation yaay ak doom. Hmm. parce que dafay am bu ñu ko bàyyee soit day am tension wala soit moom écart donc loolu mooy triangulation donc tey ji nañ xam ne des des des désaccords day am. mais désaccord bu amee dañuy xool naka la ñuy mën a def ba protéger xale bi parce que tey jii boo nekkee sa biir kër nekk papa yaay ak doom diggante papa ak yaay dina am problème mais problème bi duñ ci dugal xale bi. donc waruñu transposer. Hmm. suñuy combat au niveau des enfants parce que daf leen di traumatiser. transfert la nekk transfert la parce que tey jii lii image bi xale bu ko gis mën na la choqué. Hmm. mais xale bi ñu jël sax pistolet teg ko ci tàmpam. mais loolu rek mun na ko choqué mën na doon traumatisme tey jii xale bi ñuy jël jàpp ko nii ça ça dit ça hmm. c'est c'est moi je découvre cette image mais avec avec effroi parce que je me dis que tey jii bu nekkee nit mën na toog ba imaginer lii c'est-à-dire que ça c'est c'est une catastrophe. et puis ce qui plus choquant docteur mooy dafa am ay waajur yoo xamante ni euh, dañoo ànd ci image bi moom mooy li ñuy wax sànq transfert la ñuy def xaj na situation politique bi ak dissension profonde yi am ci réew mi ñii far fii ñii far fii ñu dem ba loolu ñu def ko ci xale yi ba ba maanaam dafa dem ba dafa muur seen bët sax daanaka xamatuñu ni que euh, l'enfance c'est l'innocence xale yi xamuñu donc lii ñu leen ñuy defloo ni ñoom maîtriser wuñ ko sax. waaw xam nga xale yi moom dañuy dañuy jouer benn scène. Hmm. mais scène boobu xam nga boo gisee même boo xoolee li indi télé ñu naan interdit au moins de 4 ans interdit au moins de 10 hmm. ans interdit au mois de parce que dañuy jël dañuy jël en compte l'impact bi mën a am ci psychologiquement ci màggaayu xale bi hmm. tey ji nañ xam ne quelque que les distensions qu'on peut avoir mooy comme ni ma la waxee diggante sànq rek yaay ak papa bu ñu nekkee ci benn kër di am problème tant que l'enfant est épargné en xale bi mën naa màgg normalement quelles que les distensions mais ñoom bu ñu bëggee xeex jël xale bi teg ko seen diggante ñoom ñaar conflit boobu dafa am ce qu'on appelle conflit de loyauté mooy xale bi dootul xam ci papa laay for wala ci yàlla for. Mm-hmm. donc tey jii bu ñu ñëwee tey jii bëgg a transposer par par euh, par par transposition. ñu indi conflit boobu au niveau de la nation ñu ne am na ay ay force yoo xam ne ñoom ñoo nekk di xëccoo. Mm-hmm. ñooy léegi nañ ci dugal xale yi. su boobaa nañ xam ne tamit la même chose qui se passait au niveau nucléaire moom mooy passé au niveau méta c'est-à-dire au niveau euh, sociétal et que donc loolu dañ xam ne tey ji ñoo ngi forme ay xale yoo xam ne ëllëg valeurs yi ñu waroon intégré pour défendre sunu nation mm-hmm. ëllëg valeurs yi ñu waroon intégrer pour mën a respecter armée bi ëllëg valeur bu ñu mën a intégré pour respecter police bi ëllëg valeur bu ñu mën a respecté bu ñu mën a intégré pour respecter imam bi. pour respecter sëriñ bi. yooyu yëpp ñoo ngi koy limee waaw loolu yëpp ñoo ngi koy mettre en branle maanaam tey jii lii buñ ko buñ ko bàyyee mu wëy. mën na indi yeneen catastrophe yoo xam ne catastrophe laa xam mm-hmm. yoo xam ne nii peut-être que ñun du ñu fekkee répercussion bi parce que dafay nekk dans le long terme parce que xale dañuy dem ba intégré ko mm. màggee ko nga xam ne buñ demee liñ valeur yu ñu war a respecté dootuñu ko respecté parce que dañ naan amatul mm. c'est là où c'est grave c'est là où c'est grave docteur parce que euh, quand même scène bi mi ngi amee ci benn espace boo xam ni dafa censé euh, former communauté parce que école quand voilà tabax nit euh, ku nite mooy la base la soubassement bi nga xam ne moo lal école mais bu fekkee ci espace boobu lay amee quand même de quoi avoir peur ah waaw xam xam nga da nga dugg si foo xam ne sama maanaam sama domaine parce que je suis enseignant à l'université mm-hmm. enseignant chercheur donc tey jii dama ne école dafa am ay vocation dafay instruire dafay former mais day éduquer parce que gis nga li ñuy wax toujours li ñuy wax rek bu ñu jëlee ci développement psycho si euh, psycho affectif maanaam bu xale bi génnee dans la famille nekk ci famille bi am 2 ans 3 ans. bu génnee ban milieu ban njëkk milieu de socialisation lay am. mooy école l'école est un milieu de socialisation. donc école boobu nekkul jàng rek ñëw jël këyit lire. calculer. joxe mais dafay moom mooy premier modèle boo xam ne dañuy jàngal xale bi naka lay interagir ak yeneen xale yi sous le regard de l'adulte maanaam gis nga donc laa représentation bi école di joxe donc tey jii bu ñu bàyyee des scènes de violence ñëw infiltré wu ci école boobu donc dafay am benn sentiment d'insécurité boo xam ne daf koy indi parce que maintenant l'école ne ne joue plus son rôle. Mmh. donc ça c'est-à-dire buñ ne rek ay représentation la. Mmh. d'accord représentation mais c'est des représentation mentales boo xam ne on autorise. c'est-à-dire mmh. c'est ça le problème. on autorise un enfant à prendre une arme et à pointer un autre enfant on autorise et c'est ça qui est grave. mooy que ne on franchit. Euh, benn benn ligne rouge waaw le Rubicon boo xam ne nii amul dara lu koy expliquer amul benn désaccord aussi profond qu'il puisse être boo xam ne mën na autoriser aujourd'hui sa cette image là. léegi docteur loolu bu xasee ba am euh, muy xale wala mu dem ba nekk ndaw jeune adolescent et tout ban euh, traitement wala ban prise en charge nan lañ war a jàngalaatee xale bi mu dellu si waat xelam. waaw ndax mën na am ay séquelles ba bés bu demee ba nekk mag. aussi waaw xam nga tey jii. man en tant que psychiatre. ce que je dis dañuy wax toutes les maladies mentales commencent chez l'enfant et dañuy atteindre seen paroxysme chez l'adulte. donc tey ji am na ay feebaru xel yoo xam ne moo ngi ci mag ki boo xam ne buñ ko prévoiroon ci xale bi du egsi mm-hmm. donc ñun tey ji mënuñu toog ba pare naan jaan bi romb lu ñu topp fi mu kii di di dóor mm-hmm. non c'est-à-dire que tey jii am na loo xam ne xam ne lii bu ñu ko defee. day jur lu bon ci antenne terme de traumatisme et que traumatisme boobu xale bi du ko fàtte xam nga xale éponge la. Hmm, day nal rek du ñëw mu hmm. ko fàtte. Hmm. da koy da koy da koy téye te gis nga maanaam représentation bi di tax mu garaaw mooy maanaam am na dara lu ñu autorisé ci xelu xale bi ba nga xam ne moom bés nee ba mag am na benn représentation xam ne mën na ko jox ne moom tenue militaire. Ah, mën na sol tenue militaire wala benn tenue bu mënta doon. mën na utiliser arm te am na droit pointé ko ci beneen xale. et c' est ça qui est dramatique maanaam mënoon nañoo jël l'arme en tant que représentation de élément de sécurité. Mm-hmm. su boobaa arme boñul sa mm-hmm. li bon. c' est pas l' mais c' est l'utilisation qu'on fait de l' objet. Mm-hmm. te aujourd'hui dañoo nekk dans une phase au Sénégal boo xam dañ naan maanaam lépp lu ñu terew rek c'est et donc mu nekk loo xam ne ni tey jii lii. vraiment c' est une image qui est choquante c' est quelque chose boo xam ne nii maanaam dañoo war a wax man tey jii buñ naan combat man en en tant que psychiatre en tant qu'enseignant chercheur à l'université dama naan xeex bi moo gën a xeex moo gën a am importance moo gën a rëy beneen xeex bu ñu mën a xeex ci Sénégal parce que on est en de former notre futur. mais est-ce que ça fait partie de notre culture mooy xale yi ñu mën leen a euh, prendre en charge maanaam euh, ba yu mel nii bu bañ a am njeexital bu ñu nekkee mag comment. mais no xam nga il faut man dama la xam dama kaa dama d'accord ma ci. Hmm. parce que boo xoolee ñun suñu culture. à la base. Hmm. on avait une société organisée. Hmm. c'est-à-dire une désorganisation sociale. on est fa on est de famille élargie ay famille nucléaire. Mm. donc maintenant tey jii la ce qu'on doit dire mooy comment on doit faire pour mën a delluwaat ci benn euh, benn panacée boo xam ne day mën a permettre. Mm-hmm. tey jii xale yooyu nga xam ne ils sont dans des dans des dans des familles nucléaires. papa yaay doom. Mm. naka lañ mën a xoolee ba ñu am benn attachement par rapport à la famille élargie même bu nekkee évolué dans une famille élargie. Mm. mais tey jii on est obligé de faire de la prévention si on veut avoir, demain hmm. une population saine. Hmm. alaaji Malick mooy li doon dugg léegi naata mooy hmm. maanaam euh, violence nekkul rek ci physique maanaam ci kàddu euh, euh, daf ci am. te relation bi am ci biir famille bi daf ci jouer. parce que xale bi lu muy dégg rek loolu lay foog ni loolu moo jaadu. Hmm. de léegi euh, dañuy dégg ay saaga ay wax yu tegginewul xale bi loolu lay répété bu demee ci biti. beneen bi ci des aussi mooy li nga doon wax léegi yar bi ñun dañu daan yar ci biir kër gi mbedd mi yar ñu école bi yar ñu. Hmm. désorganisation boobu xëy na moom moo indi lii est-ce que waruñu delluwaat ci soubassement yi nga xam ne moom moo caractérisé woon ñun suñu nit. maanaam da ngay nite da am looy rus am looy ragal am looy jomb. dama koy wax saa su ne c'est l'une de mes sama intervention yi ma gën a bëgg mooy maanaam munoo toog ci branche. jël si bi di ko scier. am na ay socle yoo xam ne c'est les socles de la société. buñ ko laalee faw ñun daf ñuy impacter maanaam euh, ni ñu koy jàngee la famille et la cellule. de base de société hmm. donc tey jii bu jëlee notre société va être édictée la société qu'on veut construire hmm. maanaam modèle familial bi ñu bëgg daf koy dafay daf ci am daf ci am lu mu ci lu mu indi hmm. donc tey jii bu nekkee dañoo jël benn famille modèle familial boo xam ne nii ay saaga ay ay wax lu dul dëgg donc may maanaam li concept de violence mm-hmm. c'est pas seulement une violence physique c'est une violence physique et psychique c'est pas sellement une violence physique c'est une violence physique et une violence verbale mm-hmm. c'est pas seulement une violence active ça peut être une violence active et une violence passive mm-hmm. parce que nit ki ñëw di wax ak yow nga ni zëmm tontu woo ko mais forme de violence la dóoroo ko saawoo ko mais violence la mais boo xoolee traditionnellement suñu culture yëpp daf ko doon tere nit bu la nuyoo fay ko. parce que nit y a rien de plus violent pour moi que nit romb la ne la salaamaaleykum nga ne zëmm di ko xool. c'est d'une violence. inouïe. donc yooyu noonu maanaam suñuy valeur suñuy euh, suñuy culture. daf am loo xam ne nii daf ko réglé woon ba pare. mais maintenant la modernisation bien la modernité man damaa jàppoon nit booy gën a moderne da ngay gën a civilisé. Mhm. mais damaa gis ne léegi ñun suñ modernisation bi daf ñuy yóbbu ci ñàkk civilisé. Mhm. gën a ñu gën a sowaas. waaw li nga xam li nga xam ne li ñu daan bañ yëpp. Mhm. ñu daal di koy nangu. Euh, arme léegi yor arm mais du dara. du dara c'est génne arme. dóor nit du dara. saaga saaga nit du dara. rendi léegi rendi la jël. rendi la ñu jël. nga tëral nit comme yow ren ko xatit ba pare ñu ne euh, tout ba tout marche bien mm. donc loolu maanaam loolu li muy impact bi muy am mm. cette notion dafa xam nga li muy njëkk indi mooy mm. la notion d'insécurité parce que kenn dootu nekk en sécurité bu kenn nekkul en sécurité mais dafa indi benn faille de tension psychique. boo xam ne individuel ba nga xam ne ku la xool rek yow def nga ne mu ngi lay. naral dara xel benn paranoïa. Mm. ba jeex na donc bu ko indee nag léegi. Mm. mais kenn dootu nekk ci jàmm. c'est ça mm. merci. merci beaucoup jërëjëf merci ci biir. lépp ci biir parce que sa doom war nga xool lan lay seetaan. tey jii internet bi ñu doon waxtaanee léegi. léegi ah. léegi nga bàyyi sa doom mu nekk ci ruq doo xool lan lay xool. c'est ça te li muy xool da koy influencer. moom ko ko moyen de dix wala de douze. c'est ça dañ koy def ci film a un euh, uh-huh. euh, bu ñu génne pour naqarlu photo boobu. effectivement image bi pour naqarlu loolu nga xam ne moom moo xewoon mm. ci mardi gras bi. c'est ça rawatina mm. donc ñëpp koy naqarlu nañu xoolaat suñu bopp daal dellu ci li fi maam bàyyi woon. am nañu ay valeurs yu nga xam ne wax dëgg yàlla wuñu pour dem wuti ji ko feneen. non du tout maanaam quand j'ai ngeen jégal ma quand j'ai découvert cette euh, cette photo cette image. j'ai failli pleurer. circule depuis parce que ça pour man y a pas pire atrocité. Hmm. merci beaucoup merci docteur Aboussi nekk euh, psychiatre merci ñu euh, xool léegi léegi l'observateur ak record li ñu xëyee tey.